fi yëpp muy camarade du muy camarade du Benno Bokk Yaakaar yi maa ngi nuyu aussi suñu mbokk journaliste yi fi teew di wax ne suñu daje bi tey ngir ñu waxtaanee euh, révision exceptionnelle u liste électorale yi nga xam ne daanaka mën nañ jàpp ne bi mu tàmbalee fanweeri fan ak benn ci wàllu ci weeru juillet ñu ngi daanaka ci cappaandaw gi ndax suba la war a jeex révision boobu nag liñ ci mën a wax mooy ci taxaw seetlu ci suñu taxawaay en tant que ñun acteur politique rawatina ci sous u grande Dakar bi ak ci commune Sicap Liberté bii ñu bokk lañ ci seetlu jëlee ko ci suñu ndaw yi nga xam ne ñoo ñu toogal ci commission administrative yi ak suñu responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi suba ak ngoon di dem di waxante askan wi di leen ñaax di leen sensibiliser mooy def nañ opération bu mucc ayib moo xam ci wàllu organisation bi nga xam ne administration territoriale bi moo ko yore moo xam ci wàllu ñaax ak sensibiliser bi nga xam ne moo ñu war ñun jëmale ko ci askan wi ndax keroog bu élection jotee kenn ku nekk mën a indi sab kàddu ci doxalinu gox bi loolu nag rafetlu nañ ci ñun taxawaayu administration territoriale bi ndax xoqatal nañ leen xoqatal bu war a bu mënoon tax opération yi yàqu waaye defuñu ko dañu taxaw topp ci seen liggéey ndax citoyens yi ñëpp benn lañ te ñun acteur politiques yi dañu war a maanaam dépasser léegi bu élection jotee rek ñu jàpp ne war nañu mën a manipuler wala ñu wax naka sudul noonu lépp rek pour fexe noo amee nit ñi ànd ak yow élection li koy joxe mooy waxtaan ak nit ki bala nga wax doy ko convaincre ko benn ñaar mooy boo waxtaaneek moom ba pare nga fexe ñaax ko ba mu mën a dem voté ji loolu nag ñun responsable yi ñoo ko war a def travail de terrain la waaye du liggéey boo xam ne da ngay nekk ci ginnaaw téléphone wala na nga nekk ci ginnaaw leneen di sos di wax lu dul amul wala di junj loo xam ne ku ko dégg mën naa jaxase fekk loolu du réalité kon révision électorale yi ñun waa euh, coalition benn Bokk Yaakaar bu commune Sicap Liberté rafetlu nañ ci ni ci coalition bi taxawee ndax taxaw nañ ci fulla taxaw ci fayda def ci seen seen kéem kàttan ndax fi ñu jëm moo ñu ko jaral dañu dëgmal ay élection yoo xam ne dafa am solo ci li président Macky Sall namm def ci réew mi moo xam ci yemale gox-goxaat yi ci anam yi nga xam ne si wàllu capital humain bi la si wàllu territorialisation des politiques publiques mais loolu lépp li ëpp solo mooy jàmm ji nga xam ne moo wënd moo wënd moo laxas activité yooyu ñuy def kon tey lépp loo xam ne toll na ni dayo président Macky li mu yéenee askan wi suñu dayo toll na noonu fii si biir commune bi pour ñu mën ko taxawal gañe ko jox ko ndam bi te lépp nag dañ ko teg ci yoon ndax balaa ngaa respecter sénégalais yi da ngay respecter sa bopp ba pare te respecter sa bopp mooy yoon yi nga xam ne sa réew charte yi bind na ko tëral ko ñun ñëpp ñu ànd ci nga mën ko wormaal te tey bu fekkee ni nit ñi dañuy junj loo xam ne amul dafa yomb torop nga taxaw ci presse bi rek di yuuxu Masamba sàcc na Masamba yëpp na ay électeurs jëlee na leen ndar loolu lañ ko war a bàyyi sant yàlla nag wala ndokk bi nga xamee ne sénégale yi wane nañ ne ñoom ku ci ne tekk tamit bu bés ba jotee la nga war a def xam nga noo koy defee xam nga fan nga koy defee te xam nga ca kan nga koy jëmale ndax nag ñun ñëpp ku nekk yaa ngeeg say bët yaa ngeeg say xel yaa ngeeg sa nopp yaa ngeeg sa njaboot boo bëgg sàmm aar ko kon tey vraiment ñun li ñuy wax fii biir euh, coalition bi mooy conférence de leaders yi xàllal nañ ñu yoon bi wax nañ ñu fan la ñu war a tegu ñun ñi ngi wax ne danañ ci tegu ak fulla danañ ci tegu ak fayda ndax dogu gi ñu bëgg te muy ndam li ñëw Benno Bokk Yaakaar Sicap dañ ko fas yéene boole ci natt wi nga xam ne mooy doon natt buy jëmmal di màggal vision président Macky Sall te muy PSE bi tël ma jox ma naa ko liir waaye kàddu yi ma wax responsable yépp a ngi ni point focaux yi rek a ñëw ak ñi mënul woon a ñëw ñun ñoo ko àndandoor wax ndax ñun ñoo àndandoor liggéey liggéey bi nga xam ne bi mu tàmbalee ba léegi ñi ngi koy def ñu def ko ak fulla def ko ak fayda di xaar nag ku ko tilimal ndax ñun dañu set wecc ku bëgg tilimal liggéey bi na nga indi li koy wane danañ ci def saabu fóot ko ba mu set wecc jërë ngeen jëf donc maa ngi leen di sant di leen gërëm